ay dégg fii ngeen di wax ne dafa war a suspendre grève de la faim pour ñu mën a am euh, lu tudd sax mu mën am force comme ça ñu jox ko liberté provisoire ñaar boobu tam dégg naa ko fi man je pense que vous devez être plus ambitieux que ça mm-hmm. vous devez exiger la libération pure et simple de Pape Alé parce que pap Alé lan la fi def est-ce que Pape Alé dafa def fii trafic de de de drogue est-ce que Pape Alé dafa def trafic de faux de passeport diplomatique. est ce que Pape Alé dafa def détournement de deniers publics. te li ñu wax ne loolu la def bu fekkee moom moo ko def ci liggéeyam la ko defee. meloon li man mi nga xam ne dama toog sama kër ma def ko ci liggéeyam la ko defee te loolu liggéeyam may na ko mu def ko te li ñu wax ne loolu la def te ñu jiñ ko ko amul parce que ki njëkk a génnee loolu. mi ngi fii journaliste la mi ngi fii di doxi ay soxlaam lan moo tax tamit demuñu jëli ko il faut être plus ambitieux que ça leen da ngeen war a def solidarité boo xam ne tous les jours la presse devrait parler de ça loolu moo war a nekk une bi tous les jours chaque jour bu fekkee solidarité gu record tey jii nii su ma attaqué woon fii benn journaliste immédiatement dañ may freiné soo demee ci benn tele wala nga dem ci benn rajo boo waxee ci benn journaliste wala nga wax ci benn benn maison de presse rek immédiatement dañ lay freiné lu tax parce que solidarité boobu ngeen bëgg mais lan moo tax bu ñu jàppee kenn si yéen du ngeen def solidarité wala da ngeen defe ne yéen vous n'êtes pas concerné fii ñun ñëpp fi nekk ci sursis journaliste caméraman ak ku doon même ku toog ci bureau fële di bind ñëpp ci sursis lañ nekk donc libérer Pape Alé moo war a nekk le mot d'ordre tous les jours si une bi chaque jour ci rajo yeeg télé yi loolu la ñu war a wax il faut être plus ambitieux que ça bu leen wax liberté provisoire su ngeen waxee liberté provisoire day génn après dañ koy waat beneen jour comme ni ñuy def fii day toog ba muy ñu xam ne léegi mu def liggéeyam ñu wooyu ko jàpp ko ñaari fan ñetti fan ñu newaat libéré Pape Alé ñu delloowaat ñu libéré waat ko loolu ba kañ loolu mënul wéy moi j'aimerais appeler à la solidarité la presse sénégalaise devrait être solidaire de Pape Alé. Mmh. Pape Alé n'a absolument rien fait. Il n'y a rien de palpable qu'il ait fait qui n'entre pas dans le cadre de son travail, dans le cadre de son métier de journaliste d'investigation. Il a fait des investigations, il a fait des révélations. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il y a. Ce sont des, des bandits qui sont derrière, qui prennent l'État comme arme pour s'attaquer à, d'autres citoyens qui font euh, correctement leur travail. Le procureur, pourquoi n'a-t-il pas appelé les, les, les, députés qui ont fait le trafic de, euh, de Il y a des gens qui ont vendu de la drogue ici. Vous ne les voyez pas à la télé en train de tympaniser les gens. qui ont fait de faux billets à coups de milliards. Où sont ces gens-là On les laisse. On laisse les gens qui ont été épinglés par les corps de On laisse les gens qui ont, dévu, qui ont détourné le denier public pour aller s'attaquer à un journaliste qui fait correctement son travail. Demain, qu'est-ce qui va se passer On va faire comme on a fait avec les journalistes qu'on a tapés à la, la corniche ici, juste ici, à la porte du millénaire. Une journaliste a été tabassée ici par la police. Les images à la place de l'indépendance. Pourquoi les journalistes au Sénégal ne peuvent pas faire leur travail correctement Parce que tout simplement, on leur envoie la police ou la gendarmerie pour les bastonner. Toute la presse devrait dire non à cela. Merci beaucoup. Merci.